naa ay nit ñuy wax ci benn taalibe sëñ Tuubaa maanaam di joxe ay lim pour gàllankoor ko sëñ Tuubaa waxoon na ne man zanna xayrallaahi yux nii aw yodur fasaaka fi daari ni suu kaddin wadur gis nga lor néwul ci ku weex néwul ci ku ñuul lor néwul ci kenn koo xamante nii maanaam mi ngi doon na doon na doon na ab kàccoor wala ku baax sax lor ci yàlla la nekk te yàlla moomu mooy mooy dimbali mooy mooy lore lépp ci loxoom la nekk gis nga loo mën a joxe ak loo mën a wax te yàlla àndu ci du am ndax gis nga ab taalibe bi Serigne Touba buy liggéeyal Serigne Touba fa yéenee liggéeyal Serigne Touba maanaam nga bëgg ne da ko fay kooku sëriñ Touba du ci ànd maanaam nañu bàyyiwaat suñuy xel xam ne maanaam diine ji benn la lislaam ji benn la maanaam jullit yëpp benn waxta lañ waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu garab la gu meññ goo xamante ni garab gi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kilifa diine maanaam gis nga nag kenn koo xamante ni da nga seetaan maanaam man ngaa xool ab jëmmi doomu aadama maanaam nga am conscience su jaamu yàlla ba noppi bakk yàlla ba noppi toog njàqal ci nit koo mën a doona doo ko baax képp ku am conscience su maanaam jaamu yàlla ba noppi woo suñu borom ci turam yu màgg yi ba noppi maanaam jël nit daan ne kii dama ko ci bëgg a toroxal pour mu suufe wallaahi xasin war ngaa xoolaat sa bopp gis nga xol mooy jaamu yàlla ma wax la ne xol bu sellut maanaam nit mënut a jaamu yàlla moom xol bu laabut nit mënut a jaamu yàlla moom te sab xol boo ko sellalee boo ko sellalee te xol bu sell man maanaam maanaam man sama wàll bopp li ma gën a gëm ci àdduna mooy xasida yi sëñ Tuubaa yi li ma gën a gëm ci àdduna mooy xasida yi sëñ Tuubaa yi xasida yi sëñ Tuubaa yi te maanaam ma wax la benn affaire maanaam Sëriñ Tuubaa maanaam dem na ba ñëw te dafa wax ne wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal bahri sa naf in bila dara maanaam moom njariñ la lu àndu ta lor maanaam gis nga lor képp koo koo xamante sëñ Tuubaa wax na ne képp koo xamante ni yëkkati nga maanaam lor jëmee ma ko bala ngaa dee gis ko képp koo xamante ni yëkkati nga safaan maanaam jëmee ma ko bala ngaa dee gis ko mooy taalibe yi sëñ Tuubaa yi nañ leen waggar gis nga jullit yi benn lañ nañu jéem a bennoo doon benn bañ a jël lii fenqale fii bañ a jël lii taf fii parce que amul njariñ am na loo xamante ni nit boo ci bàkkoo ba yaakaar ne lii ma yor mën naa cee faagaagal gu ko ma soob nit yor na lu koy contre contrecarrer loo xamante ni la nga def dara du ci am fi ñu wéeru mooy ci sëriñ Touba fi ñu tënku mooy ci Serigne Touba te ab muritub Serigne Touba bu gëm Serigne Touba wërta xof wërta tiit maanaam gis nga buñ la tëkkoo nga tiit li nga doon mëtoo suñ la waxee ne nangam lii nga tiit li nga doon mëtoo xam nga lu am solo mooy maanaam jéem a wéeru ci Serigne Touba rek tey ñun maanaam bépp murit boo xamante ni ñi ngi lay wax maanaam Serigne maanaam xoppee nañ ko nu ne. xuppee nañ ko nu ne xëppee nañ ko nu ne lu ne jéemal nañ ko sëñ Tuubaa te bi mu ñëwee taxaw na ne jéggal naa ñëpp ñun taalibay sëñ Tuubaa yi daneen fas yéene jéggal ñëpp waaye xam nga lu am solo mooy li ñu war ñu ne ca waaye ab jaamub yàlla wurta jéem a wut naa damay yàq jaamub yàlla maanaam conscience u nit sax waru ko maye wurta maye yow nga toog liggéey sa tur yàlla ba mu sotti nga war cee ñaan yàlla mu yéegi de war cee ñaan yàlla mu la ci maqaama kawe war cee ñaan yàlla maanaam mu may la sutura su yaatu ci àdduna maanaam nga bëgg cee maanaam yàqal yàqal nit ñi loolu loolu loolu bu mu am loolu bu ko kenn jéem a def déet déet mukk maanaam yàq nit amul sens moo gën a gaaw gën a yomb nit ñi xam nañ ci lu ne mën nañ ci lu ne gis nañ ci lu ne ndax fu nii fu nit di raase ci àdduna xam-xam raase nañ ko lu maanaam lu ñuy jàngale ci tur yàlla ci nit maanaam jàng maanaam jàng nañ ma ne kooku daa mënul rek ku mën a yàq mën a defar gis nga bala ngaa mën laxas da ngay bala ngaa mën laxas da ngay mën làqarte bala nga bala ngaa mën làqarte man laxas te ñoom ñaar ñëpp danga koy boole waaye xam nga lu am solo am na si loo xamante ni kenn suñu ko biral waaye gis nga maanaam taalibey sëriñ Tuubaa yi dañoo fees dell ci lu leen sëriñ Tuubaa suturaale waaye ñun suñu noo wax suñu noo jëf parce que ndigal rek ci la ñuy tënku waaye nañ jéem a bennoo jéem a doon benn jéem maanaam li ngay jël nit di ko def ci lu baax nga jéem koo def ci di ko def ci lu bon nga jéem koo def ci lu baax ci sa jëmm ngir yàlla gën laa yëkkati